am demande nag boo xam ne moom si boppam moo ko déposé woon ci fondation Servir le Sénégal mi ngeen xam ne madame la première dame moo ngi koy jiite Eras tamoon tamit amoon une liste de quinze personnes boo xam ne ne moom moo leen déposé déposé loon seen demande euh, satisfaire nañ ko xar yaa ngi nii moo la ko jox def lu dul remercier d'abord ki nga xam ne moom moo jar a remercier mooy le président de la République remercier suñu sœur ñoo xam ne ñoo bokk doon dëkk saint muy euh, la première dame ma koy wax first et di wax ni dafa amoon ay kàddu yu ci digoon keroog dégg na lu ñu nekk wax yi bon yu daloon ci kawam man dama bëgg sénégalais yi ñu dellu si wax nekk ay nit ndax première dame Marième Faye Sall buñ ko xam na ñuy jàppale sunu mbokk la sunu mbokk la sunu doom la sunu rakk la sunu lépp la ku nekk ku nekk Sénégal dara la ci yow ba pare nag bu boole ci baax gis ngeen la muy def yi bu di génn di dem fépp dama ko démb dama dama woo honorable honorable dama maa ngi koy Aziz muy taxaw ministre conseil mu ni jox leen ko xar yi mu bëgg diis laa laaj moom mu ne dama koy def quinze nit bu lay jappalé dafa am foo té foo koy tax tuuti li ngeen lire sur réseaux sociaux yi am na lañ waxal ci man dem dëggal rek la leen defal yu nek dégg na ko mais nak duma bayyi bàyyi ndax Sénégal moom ëppal solo lu nek kon nak président li ngeen di dégg lépp ak jabaram ci réseaux sociaux yi dara amu ci madame tay le gënal tay le gënal nek limu nekkon tay le gën mën limu mënon dem ñun en tout cas dal dama def lu dul di leen ñaanal di ñaanal la première dame di ñaanal le président de la république ñu am kattan ba nga xamni li Sénégal yi dénk leen mën ko dëggalee si jàmm. jërëjëf. solidarité.